observateur ci xëy bu njëkk akub exclusivité waxtaan wu yaatu diggam ak Bill Gates di ki sanc fondation Bill et Melinda Gates kilifa gi nekk fii ci ndakaaru war a co-présider mook président Sall ndaje mu ñu war amal tey jii di réunion du grand challenge juróom-ñeenti fan ba fukk ak benn ci fan ci weeru octobre bu njëkk nag ndaje mu ni mel ci wàllu wér yaram ñu koy amal ci Afrique sow jant ndakaaru di ko dalal ci yéene kaay bu groupe Futurs média Bill Gates wax na fi ci projet ci wàllu yokkuteem wér-gu-yaram programme am ngir Afrique ay ambition ngir Sénégal moom ak institut Pasteur am Ndakaaru wax it ci sunu ceebu jën national bi ubbiteg a fës ci yéene kaay yeeg seeni activité politique noonu amal ci njeextalu ay bés bi Sud Quotidien ci déclaration de candidature Aly Ngouille Ndiaye ne bàyyilul dara nguurug Macky Sall suñu réew mu ne moom Aly Ngouille Ndiaye mënatul wéy di wékku ci bitim réew ngir dundal aw askanam wàllu chômage bi di ñàkkum xëy mu jàpp ne dafa jógee atum 2012 téeméer yu jël fukk yaak ñaar dem ci téeméeri jël ñaar fukki ak ñett ci atum 2022 état bi mu ne warul doon ngànnaay contre adversaire politique Aly Ngouille Ndiaye ba tey ak yéenekaay bi Sud Quotidien ne moom candidat la ngir lépp lu yokk soxna yi di candidat ngir xeex ak yàq di gabe ji ci réew mi Aly Ngouille Ndiaye ñu fekkaat ko ci yéenekaay bi Direct News ak ñetti abdu ya ma nga ca naan am réew ngir nga jiite ko bu baax indil saafara jafe-jafe yi faaw nga xam li yittee askan wa dëgg mu ne candidat lay doon bi taxaw ngir wàllum xëy xëy ngir ndaw ñi moytul leen paatu gi ñuy paatu saa su ne ci mbëkk meeg yoonu Barça gi Amadou Ba it ci terrain bi direct news ne mbooloo mu takk loolu la yëkkati démb ca Parcelles ni rawatina ndaw ñi foo sànni mbàtt mu tag dundal na fa yaakaar xamal leen ni dinañu wéyal plan Sénégal émergent ak ay ndaw yu nu gën a formé yu nu gën a tàggat ay ndaw yu pare ngir xëy Aly Ngouille Ndiaye di feelu ci l'info di ca wax ne bokk na ci ay mbébétam moom raggaatdeeru réew mi mu ne fonction yi mu occupé yépp ba fii may na ko mu ràññee ak xam dëgg yittey askanu Sénégal ci yittey la ci jiitu mooy kaaraange sécurité ci bépp fànn ci seen ak dund quotidien mu mel ni moom maire ab dafay jiitu ñu ko mën laaj nag ne ko waaw bilan Macky Sall bi nag nooy def ak moom ci yéene kaay bi mu cay tontu ne ku ko assumé la boobu bilan waaye président Sall la ku ci ëppale Aly Ngouille Ndiaye ci la tribune Sénégal bari nay naqar kumba am ndey kumba amul ndey naka noonu it ak xaajaloo di division bés bi le jour ak jongante 2024 ñetti doomu pendanaar yi di Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba ak Mohamed Boun Abdallah wu ne Amadou Ba moom fa mu yaakaar ngir tegaat loxo Parcelles mooy ci ndaw ñi moom Amadou Ba premier ministre demoon nag jaale ji Bougane Gueye Dany ginnaaw njaalu président Sall ci téléphone ci la tribune Bougane di ci wax yéeneem nguur gi gën a xeex ak jàngoroy cancer ndax mu ne soxna si soxna muumi juróom-ñeenti at a ngi muy xeex ak jàngoro ji sàkku na moom Bougane Gueye Dany ci premier ministre Amadou Ba ñu def seen kem kàttan ngir wàññi bu baax ñi faatu ci cancer ca loolu mu ne nguur gi am nañu moyen yi la tribune ak mbooloo mi àndoon yépp nag ak Bougane Gueye Dany tiisoo paatuk soxnaam ne Sénégal gépp a ngi woon kër Bougane Gueye Dany leneen ci yéenekaay yi di soxna si di procureur général Mariam Diop Gueye ci taxawaayam ngir défendre Ousmane Sonko digganteem ak direction générale des élections mi gàntal ay fiche parrainage ngir moom source année magistrat hors série la kenn ci naatangoom moom magistrat bi ne nii la mës mel maanaam su amee conviction di lu mu gëm daf koy defendre ba sës maanaam ku moom boppam la ci xel ma yéenekaay bi ñëwaat ci jaar-jaari soxna si Vox Populi yi moom waxtaane waa parti socialiste yi ca Tëngéej ak socialiste ya fa Marème mu ne mburu Benno Bokk Yaakaar dañuy jeexale export geeg stade yéenekaay mi jàpp ne week-end bi sunu gaynde yi moom macha allah ci àddina zéro faute Ismaïla Sarr ak Limane Ndiaye doxal bu baax ca Marseille Crépin Diatta ak Jacob Dio bu ràññiku ca Monaco Jackson moom xandal bu baax waa Burnley leneen lu ñu stade yéenekaay xamal mooy tàmbali regroupement gaynde football yu Sénégal ngir waajal match amical bi dox seen digg Cameroun ca Lens wàllu lamb sunu lamb xamal ñu ne Ada Fass yóbbu na urgence démb Zos muy juróom bendeelu defet ci moom Zos Zos le